très cher ami internaute de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax a baax si ni ci série Mariama épisode 16 dañu koy door ak Beydi Beydi nag moom mbetteel la am ci bi mu yëgee ni Fama gaañu na mu mel ni kon parrain bi ak gangam suñu moyuwul nag fii la ñuy teeralee ndax yaakaar naa ni euh, Beydi euh, deewu Fama du nekk loo xam ni lu muy bàyyi mu sedd la te nag kon dina tax rek ñu daal di a accélérer seen ay enquête ngir daal koy jàpp ndax ki nga xam ni moo di euh, inspecteur inspecteur bi xaw ma commissaire bi moom jàpp na ni li xew nii yëpp méthode parrain bi la ndax ñoom ñooy euh, faatee noonu ñu jàll ci rak yi rak yi nag gannaaw bi mu toroxalee boppam ndax wàccee boppam ci kanamu Mariama ñëw na daal di créer une histoire euh, contre Mariama ngir nag yaayam daal di koy génnee euh, kër gi mel ni nag réussir na ndax yaayam di ki nga xam ni moo di daali nekk na koo xam ni lu ko doomam wax rek da koy gëm waaye rawatina luñ ko wax ci Mariama nit boo ko bañee yaakaar naa doo yàkkamti lu ñu tuumaal ko di teg lu ñaaw ci deram ba tax na nag mu daal di kompaloo ak ak ki di rak yi ñu sotti ndox Mariama moom li mu bëgg rek mooy euh, ñu daal di génnee xadi euh, kër gi mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di euh, seen papa wala seen maam di Moustapha ñëw na rek ne dina régler lépp waaye mel na ni du yomb ndax kër gi yaakaar naa ni nga xam ni moo di daali ak doomam dañoo nekk ñoo xam ni seen bopp rek ñoo leen yitteel yi nag mënuñoo supporter ki nga xam ni moo di Mariama ñu jàll ci père vieux bi nga xam ne école bi ak yaakaar naa comportement wam moo ko nar a nag yàqal moo ko nar a yóbbee euh, musib ndax nit boo nekkee mag dangaa war a mage war a nag nekk kilifa nekk exemple pour xale yi buñ ko royee si yow xale yooyu duñu baax nekk na mag boo xam ne kenn soxlawu ko ci société rawatina ci école nga xam ni école euh, liñ fay def mooy éducation di éduquer di jàngal nit ñi noonee nag la ministère de l'éducation ñëw daal di xam ni mu nekkee yaakaar naa loolu nag même bu fekkee ni que justifié wu na ngir ki nga xam ne moo di ministère daal di koy baal waaye nag gis nañu ni itam ku ñàkk jom la gannaaw li xew lépp fi mu mujjee mooy dal di xëpp lépp ci kaw ministre bi ndax jàpp na ni euh, nit booy ñëw dangaa war a yëglu waaye jékki saa yi rek ñëw moo waral loolu yëpp jàll ci Moustapha di maamu Mariama moom nag mu ngi essayé di corriger daali euh, waaye nag terewul daal di continuer di ko manipuler waaye moom Moustapha nit la te it nag xam na bu baax a baax kuy jabaram ndax yaakaar naa jëkkër ak jabar bu ngeen nekkee ku ci nekk di nga xam sa morom xam boo xam xam rek wala lu mu wax di nga xam lu dëgg ak lu dul dëgg na ko te it nag euh, nanguwul benn yoon li nga xam ni moom la daal di waaye daal di moom jugul ci décision ba tey te mooy na Xadi génn kër gi même bu fekkee ni que Mariama mënu koo génnee ay Xadi moom day génn kër gi mu mel ni kon Xadi moom moo ci gën a loru ndax moom mbir mi yëpp li xam ni rek moom moo ci métti ci moom mooy mu far ci côté Mariama alors que Xadi euh, li mu mooy far ci côté dëgg ndax Mariama moo nekk ci dëgg nit yaakaar naa booy far dangaa war a far ci dëgg waaye nag waroo far ci safaan loolu nag la daali ak Racky munta supporter moo tax ñu bëgg daal di humilier Khady daal di koy toroxal daal di koy génne kër gi ñu jeexal ak séquence mujj bi ñu gis ni proviseur Diédhiou moom nag euh, promettre na euh, ministre bi que ni dina am na ni école euh, la différence te moom Diédhiou yaakaar naa ni am na expérience su école ndax ku dem ba retraité kooku yaakaar naa am na expérience te nag kon dina xam fan la mën a jaar daal di jooyanti rëq-rëq yi nekk ci école bi yëpp ci noonu ministère itam moom it promettre na ko ay choses mu mel ni nag ministre bi lu mu def lu am important la ndax yaakaar naa nit buñ la dénkee dara danga ko war a saytu te buñ la dénkee éducation euh, yaakaar naa école moom moo tax ñuy wax éducation kon euh, buñ la dénkee éducation waroo toog ci sa bureau rek ne yàcc yaacaaral waaye parfois war nga rek di def ay visite de proximité di xool école yi nan rek euh, la ñu toogee waaye itam yan problème lañu am ngir nag nga mën koo saafara ngir mën a des sa liggéey waaye liggéeykat boo xam ni wala ministre boo yaakaar naa ku bëgg liggéey rek du ko def kon mbokk internet di foofu la yem ci épisode 16 bu série Mariama ma jox leen dig daje si beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàttee ba notification bi ngeen di jot suñu vidéo yi à réel jërë ngeen jëf